mais dafa am lu ko break liko break loolu sentiment yi mënatul nek lu normal il faut nga am xol bu nakari comprendre nga yalla dogal ñu ñaan jamm ba jamm delu ci jeudi affaire yi reprendre digenté jeudi ak vendredi samedi mo doon affaire bi donc euh, pour man euh, da dafa neexoon ba ci yàgg mu dagg après mu continuer euh, ñu gis la le vendredi Wally nga xaw a émotif oui waaw c'est normal parce que ci ban état d'esprit nga tolloon ba ba ngay tur xewal ci rek waaw bi may tur xewal moom wax dëgg tey ma ko parce que sama xel dafa dem yarax ci sama papa parce que moment boobu ku jege Wally wala nga mën sa jege stafam xam nga ni a ngi jaabante rek Bamba préparé ma ko ci ligne bi. Euh, day jàbbante ak costume bi ah njóogu xaa anama fu mu ne. xaa mhm. lum la jox encaissé fii xam nga ñaata billet jàbbante xam nga bës bu mag su amee. rajo préparé nga daan gis nit ki même chose. gisoo ko ça fait mal mhm. automatiquement bi may jooy boobu maa ngi way wayam donc sama xel dafa sori sama xel dem ci moom bijou jeudi vendredi samedi. dafa melni dañ ma tégal lepp lu ma cion daan mësa wax papa cion lepp lu ma daan mësa wax dafa mel dañ ko tek suma xel. ci showbiz wala. waaw ci aduna ni nga nara dundé li nga wara gis ci wa sama papa généralement ma suran wax ak man ci ay télé lako ko wax ay radio xam nga li ma wax ak man face à face ni wul mais bu lay wax day jaar ci digg bi du am du am. tout tergiverse waaw day jaar ci digg bi donc dafa mel dañ mako tégal tegal mais est-ce que est-ce que période boobu mën na jàpp daf la daf la manqué woon ah, euh, parce que da ko da nga ko nam wala daf la manqué woon parce que da nga wéetoon ci situation bi ñu doon wax dafa war a annulé warul annulé ci ñaar yooyu ban la ci non manquement Papa Thione moom du deñ ci ñun parce que yàlla moo ko dogal te moom mu liggéey ko nag loolu du deñ ci ñun mais li ma doon wax yëpp moment boobu dafa dama ko doon dund li muy wax ji muy ñëw ngay fàttali ko ay wax li mu lay wax nga ko dund à à l'instant même. parce que man soo xoolee ñi ma àndal maguma leen ñu bokk benn génération ñi ci bëri mat nañ ma papa ñii mat nañ ma nijaay xam nga ñii mat nañ ma mag ñëw ma jiitu ci aar ah mais ñoom ñëpp ku ci nekk day xool suma set ak suma dëgër laay pour mën a tenir jour boobu moo ñëw répétition da ngay gis ñi ñi ci di jooy di la xool di xool naka nga mel. Mais j'étais bien, moi. J'étais bien. J'ai juste pensé à mon papa. Mais c'est bon pour moi. Tu pensais, tu pensais, tu sais, état d'esprit, bon instant, avec bonne parole, avec bonne voix, pour traverser cet esprit de la joie. Waouh, dafa ben wax buy man man d'une lu musique de ma musique de ko xaw ma laaj leen ko laaj leen ko dafa ne dafa ne man dund naa lu ne en parabole quoi waaw dafa ne naa ci musique lu ne def nañ ma lu ne léegi comme ki wax moo moom ne ko lu tax ñu def la ko mu ne xaw ma laaj leen ko c'est-à-dire def doo xam lu tax ñu def te soo leen laajee lu tax duñ la ko wax dan nga jàpp ne dañ ko def I don't know beaucoup de choses beaucoup mais loolu mais loolu ci sens ci ci moment yi ngay xalaat loolu dafa fekk nga am loo yëg yow ci sa jëmmi bopp avant ngay xalaat si papa dafa yow fekk. c'est tout à fait ma fi jógee ànd ak lu toll ci soixante-dix personnes. Mm. wala lu ko mën mm. lu ko ok ah? ku ci nekk tàggu sa kër nga jóg dem responsabilité bi nekk sama dond sama ndodd lii ku ci nekk dama rendre compte sa famille loolu ci mosoon dal ak loolu mën a dal wala sama déet c'est tout à fait normal diaspora bi ku ne jóge fu nekk dagg sa billet jënd say hôtel soirée Wally moo gën a metti mhm. da ngay jënd yëre boo sol boo dee jigéen tu vas dépenser minimum un million mhm. fay hôtel pois la dafa metti mais coon bu la tegee pois ci wax euh, non teguma poids ci wax non non ma ni bu la tegee pois ci wax waaw yenni na la tamit ci wax ban peut-être ban waxu coon moo la delloo si ba nga ni waaw coon a ngi nii waalee ngi nii Euh, parce que dama ko doon dégg tout le temps mu ni coon rek a xam coon mais waali rek a xam waali. da koy wax da koy wax dama ko doon dégg tout tout le temps. waali kone waali seul waali kone mais ban ban ban nga xamee ni wala nga comprendre que ni affaire yi toll na fii waaw léegi. Euh, maa dafa wax dafa wax mu ne waali maa war a bi. dafa ne waali mm-hmm. su bëggee xool boppam. na ma teg ci kanamam. parce que maay miiwaaram comme seetu. ban ah. ci ay waxam moo la dédouané. en quelque sorte mo la dédouané c'est-à-dire mo la <laughs> il ma di ñaari wax la ma mës apa wax sa papa ñaari lañu ñu waxtan waxtan bu sérieux ben bi ci jardin bi la suma ma ñu bi ju fekk nañ ko ñom ñogu mbay mom ci wax mom wax lu mëna ak mëna tok mom ci digg bi lay jaar mom waxtanu waxtan ñu kawé yoyu ben bi ci avion lañu nekk mu ne ma wali est-ce que ça va mu ne ko waaw ça va kay non ma yaangi supporter mu ne ko waaw ñuy dem Suisse. wa ah kon jeexna est-ce que ya nga supporter je sais que c'est dur parce que man sa papa xeyna awma jotu ba xawma di chaque fois di la wax ni sama xel mi ngi ci yow wala ma ngi ni yarew ñuma nonu waye nga xamni ma ngi lay top même su fekke sax dama faible mënuma dara ni mais ma ngi lay top tu vois. am nga lu mu ci hein ah. ne la. Euh, nit du xeexee kanam di xeexee ginnaaw booy xeex da ngay jàkkaarloo ku ngay xeexee donc ça veut dire ko waale coup yi day jógee fu ne waa bane donc c'est un boo xamante nii lépp lu mënoon wax tey maa ngi koy dund bilaa walaay baak seen juwaa mais tey tey Wally Seck euh, euh, number one comme ni ñu koy waxee tout le temps nga def euh, euh, li nga xamante ne moom de pare ba tey ñu nekk ci trajectoire bi nga xamante ne ci la ñu nekk balaa krajo duñu may élément bi ñuy dugal ci ligne bi waali jooy ñëwaat jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoom ñooy orchestre bi ko papam bàyyi en quelque sorte en grosso modo ci li nit ñi wax waali tey bu doon wax ci Ramadan lan la wax waaw Ramadan day yàlla moo dogal suma bërëbu liggéeykaay la woon ma ñëw fa doon liggéey en tant que employé wax naa ko fu nekk man liggéey naa Ramadaan bi ma commencé xam li may fayeku Ramadaan wala Ramadaan li muy fayeku motul huit ans liggéey naa Ramadaan ba sam papa ma jox la ngay musuma xam lu may fayeku musuma xam lu fa musicien di fayeku Zénith de Paris joué naa ko musuma xam lu cachet mel mhm. té bu sa bu ma liggéey ba paré musicien ñing may dégg man may fay musicien yi tam papa dama ko wax né ko dama bëgg sama tarbiyu bi dama bu mako yakal yow lo am tiel man luma am ñu bokk ko tadir luma nit mësaan may ci scène bi dama koy dajalé tak tak tak tak sama contentement mo doon ah nako musicien mané wa fay na hotel yépp ku ci nek jox naa la sa per diem ne Ali tu te manques beaucoup trop beaucoup trop sama papa mosuma wax merci bañ la mos wax merci deux jours avant muy décédé damay génn ci hôpital bi ma dem mu ne ma waali ma ne ko mu ne ma merci ma ne ko papa déet ñoo ko mu ne ma jërëjëf lenn da nga ma desel ma ne ko waaw mu ne ma génn ma fii mooy loolu mu mujjee wax moom génne ma fii loolu nga ma desel génne ma fi génne naa ko fa yóbbu ko fi moo ko war yóbbu muy bàmmeel you est-ce que duñu. dañ dem feneen dañuy génn foofu parce que ah, ah. laa fa woon. Ramadaan employé laa fa woon. yàlla di dogal may jouer ñaari morceau wàcc deux personnes doon taxaw ci piste bi. mo koy def non nank nank je me décidé ñëw sama papa nak dama bëgg def sama soirée bop daf ma euh, xam nga boîte bi ñata ngay fay. mu ne ko déedéet mu ne ma temps laa la koy loué. Euh, xam nga musicien yi li ñuy ak mu ne ko déedéet xaw ma ko de mu ne temps nga leen di fay mu ne d'accord na non la commencé di def sama soirée bop damay fay boîte bi fay matériel bi fay musicien yi. Ah rien n'est facile à mes débuts rien n'est facile. mais boo taxawee ci kanam nga xam ne fi nga taxaw nii yow sa papa moo fi daan taxaw. Mhm. ñoom ñu nekk sa ginnaaw ñi daan nekk sa ginnaaw papa yow ban bët nga leen di xoolee sa bëtu papa bëtu frère wala sa bëtu say employé. non non non non. tàmbalee ci chef d'orchestre bi may tàmbalee bi may tàmbalee man employé woon employé laa woon comme man actuellement. ci mhm. salle bu ba rek salle bu bu 15 personnes. samay frère lañu répété rek waaw. papis père sax laa koy wooyee. Mhm. le chef d'orchestre père laa koy wooyee yàlla xam ne du sigi xool ma. Papis, quand je suis malade, il est malade. Quand je pas bien, il pleure. ñëpp xamee nañ ko loolu. Cheikh dafa may sama tëggkat dafa may xool di jooy day tëgg di ma xool di jooy. xaali it ñoo ma gën a bëgg. dañ ma bëgg en dañ may dama yàgg damay dama màgg ak ñoom. ay frère. dama màgg ak ñoom say frère nga xool leen ñoom ñëpp ñu nekk say frère ambiance bi am nga xool ci benn frère boo xam ne nee na il n'est pas content. en tant que frère <laughs> yow tey en tant que frère tey. tey en tant que frère looy dundee situation boobu tey. ay aba ay aba ay aba ñu ngi ci biir Ramadan ñu ngi ci frère yi ay aba ay aba ay aba non mais frustration fépp lay am. moi je suis pas Dieu. sa biir kër sax da ngay am da ngay nekk sa soxna nga tooñ ko léeg-léeg du mu frustré fépp lay am moi je suis pas Dieu. mais en cas de frustration wala yan jéego lay def. alors euh, sur ce bijou. Wally ne répond jamais waaw way naa ko. kon préfère chanter soo ko mën répondre waaw je préfère. woo ko laaj ko lan moo xew. am na question bu la bisu posé sànq par rapport à sa papa est-ce que sa papa il te manque léegi man damay jël même question bu posé le est-ce que Ahmed il te manque. est-ce que Ahmed me manque. oui écoute euh, Ahmed c'est mon grand frère. Hmm. man nag du Faux, moi, mhm. c'est mon grand frère il restera toujours mon grand frère